libéré leen les sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi ci kaso bi pour des kenn yu jarul dërëm benn bëy benn laxasu yàmba benn cornetu jaaf benn nangam ngeen jàppale ci kaso yi tëj leen fa bàyyi bi te Moussa Cissé Lo xam naa ñan ñooy dugal drogue bàyyi moom woowu leen ko déglu ko mu wax leen ca la ca leer ngeen bàyyi ko moom mu yaataayul ne ngeen jiyee ay boy ndaw yu nekk ci banlieue bi jox ndaw ñu liggéey. faju ndaw ñi permettre leen ndaw ñi ñu épanouir ci seen dëkk ñi ngi dee ci gaal bi ñi ngi dee ci àll bi ñi ngi dee ci lu ne ñi sonn fatigué xiif lot loof jànguñu ngeen nekk di jàpp nit ñi di dëkk ah c'est une dictature en fin de on est dans une dictature état d'urgence taxut ñu mun a ñàkk ñu ñu war a ñàkk transparence ci réew mi état d'urgence warul tax ngeen def lu leen neex ci réew mi jàpp ak tribord bawor sénégalais bu leen ci neex de manière sélective bàyyi ñi nga xamante ne nii ay vagabond lañ ci réew mi ñu taxawaalu ko yaataa yu bëgg mais sur loolu pour lan pour lan pour lan Sénégal toll ci niveau boo xamante ne nii di ngeen jàppale fils di nit fils yi am di dignité ci dëkk bi nekk di xeex pour ay pour pour pour Sénégalais yi nekk si jàmm di ñafe di rente pour seen peuple sans rien attendre de l'État ñi nga xamante ne nag ñoom ay sàcc lañ mais ay col blanc lañ ay gros bonnet lañ ngeen leen di libéré di leen may provisoire tegu leen ko fenn et nous réclamons la libération immédiate et sans condition de tous ces Sénégalais là qui croupissent dans les prisons sans raison bàyyi leen Abdou Karim mu ñibbi këram bàyyi leen Assane Diouf mu ñibbi këram respecté leen Sénégalais yi soit la justice elle est là pour tout le monde. soit ngeen xool lu ngeen def mais bu ñu nangu ngeen jàpp suñu justice bi di ko foyee def ko seen yàq foykaay bi dóor ku leen neex ak jàpp ku leen neex saa su leen neexee ak nu mu leen neexee tegu leen ko ci yoon tegu leen ko ci yoon maintenant sénégalais yi nag lan la ñuy def ñoom qu'est-ce qu'on va faire ñun baadoolo bi li ñuy def ñun ñu bokk ci nguur gi li ñu def mais on est menacé chaque jour que jël fait sax sa bakkan ci xottu gerte sa ba sa ba ba bakkanam ci xottu gerte sa life yaa ngi ko tayle on est dans un pays où les gens n'ont plus le droit sëqat kenn amatul droit wax kenn amatul droit ñàkk kenn amatul droit yow wax li la métti ci réew mi mais fan la ñu nekk.